عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه yàlla ñi ngi suñu wax ci turu suñu boroom subhaanahu wa di ko ñaan mu dotti waa may xéewal ci suñu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñëw ak yéen ci seen qissatu seydina yusuf jaar-jaari seydina yusuf alayhi salaam seydina yusuf nag xam ngeen ni doomu yaqub la yaqub isxaq moo ko jur isxaq seydina ibrahim alayhim salaam moo ko jur xam lu ciy topp incha allah mi ngi noonu alxalqa lu jot ay bàyyi noonu mbokk yi yaa ilaahi yaqub ma fa mu wéetal yàlla yow sama yàlla sa mbaax mat na lakinahuma ayna abdika yaa sa ñaari bët yi day jaam bi du gis du du du raxiil tataraqabu quduma hada alwali raxiil a ngi toog fukki at ak benn di xaar doom ji judd ahada ashara aaman wa hiya tasmacu min fukki waa dëkk bépp ñi nga wax wax ñu ñaaw ci moom wax ju metti ci xol لطالما ندوها بي يا عاقل tudd nañ ko ne ku jormbel la وقالوا إنها لا تنجب nee nañ du nee nañ du am mukk doom mënta am doom loolu yàlla àgg na ci sama xol metti na ci xol yàlla ma nga ca booru bi mu wéet ah kële gis nga ko ma ngay ñaan moom tamit waxoon nañ la mi ngi ñaan ku nekk yaa ngi ñaan maa ngi ñaan yow yàlla ji mbir yu bari am na ci yaqub ak njabootam bàyyi ma rek bàyyi leen ma bàyyi leen ma ma wéet ak sama yàlla ji ñaan ko moom li muy ñaan mooy Yaaqub soxnaam sa Rahil dee ak doom moom day maa ngi ñaan nga wàcce sa musiba ca Yaaqub ak njabootam Yaaqub wër mbiram ak weddem wërta demee noonu de li muy def fay ko ko yow Astar mu mag mi sottil sa mberum mbugal ci Yaaqub ak waa këram yëpp sotti leen safaras mbugal cey xërëm jëde lay ñaan daa war a dee de ci guddi gi daa war a dee moog doomam ji mu ëmb de ah safara sa def na benn yaa rabbi maa ngi lay wàcc sa maa ngi lay ñaan nga wàcc sa yërmande sama njaboot bu deewee day soxna si ñiy jaamu xërëm yi danañu danañ kontaan te ña nga cay sax ay at di jaamu xërëm yi rek yow yàlla maa ngi lay ñaan. maa ngi lay ñaan nga delloo ma sama soxna ak sama doom boo defee bu ñu muccee rek dana tax ñu jaamu la ñëpp génn ci jaamu xërëm jaamu la yow yàlla yow yàlla yow mi yër dàq yërëm ñëpp yàlla yàlla nga ma yërëm way dimbali ma yow suñ boroom allahu akbar ndeysaan ñëpp nga sa géem gis ngeen rax yi la noonu ba tey dafa dafa xam xamatul fu mu nekk rewlekat ya ña nga tiim ñëpp a ngay ñaan bu doon sunu jamono ji ne ma ne yàlla yaa ngay dal mocckat yaa ngay mocc waaye day góor ga mag ci xalwa ga it moom di ñaan boromam ndeysaan gis ngeen ca àll ba mu wéet ak boromam kenn wéttaliw ko ma ngay ñaan ndeysaan ñu xool ñaan nga fa muy mujj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moon bët yu jooy ngir toroxlu ci yàlla bët yooyu safara du ko laal xam ngeen yonent yàlla yaqub ndeysaan xol ba sori na la ko metti mooy li ñuy wax ni xërëm yee ko jàpp jabootam ah, xool leen mbokk yi am na lumière buy buy commencé signalé de leer gaa ngay ñëw in dalla ala cheyin fa innama yadullu ala alamati istijaba ah, leer ga ñëw na allahu akbar istijab ma yàlla day mel na ma ngay nangu de ah lumière boobu ñëw na dinañu fàttali jaar-jaari si yonent yàlla Moussa day santal na loxo ya boromam mbàkkat ko kañaat ko gaaral ko soxlaam jullit noonu lay def mbokk yi waaye ñu mbokki ñu xool so rax yi la noonu xool leer ga jóge na ci àll ba départ ñëw dugg ci néeg bi subhanallah mbokk yi leer ga jóge na ci àll ba départ na ñëw dugg ci soxna si allahu akbar yàlla yàlla may ijaaba leer gi jolli gi lan la leer gu jolli gi lan la allahu akbar lii mandarga yi ñaan gu nangu la yàlla ñu ko yàlla may mbokk yi nañu lewal suñu lekk lewal suñu naan lewal suñuy solu ndax ñu am ijaaba yonent sala salaam na ku dul lekk lu dagan doo sol lu dagan doo dunde lu dagan doo ñaan ñaan gu nangu ah nañu bàyyi xel loolu gis ngeen day leeme weer bi ñëw na ah gis ngeen ni mu tàmpee ci ndaw si ni mu leere allahu akbar ah ximbiliku na allahu akbar moom sax leer ga fa mu jógee jaaxal na ko ah xel ma del si waat na ximbaliku na subhaanaka ya rabbi ma akramak subhaanaka ma altafak ya latif allahu akbar ah tàmbali waat na nag tàmbali waat na de matu ba tàmbali waat na ah ñëpp sëngëm nañ waaye daal ñëpp leer gi moom ñëpp ko gisandoo ñii ci biir ñii ci biti allahu nuuru samawati wal ardi matalu nuurihi ka mishkaat fiihaa misbaah asamaan si dina taw daa mel daa mel ni day bëgg a taw daa mel ni day asamaan saa ngi yëngatu de lii màndargay merum yàlla yi la kon yàlla yi faaw seen safaras muñ mer fay Yaaqub danañ ko fay ak njabootam yëpp danañ leen alak yow astaaru mu mag mi yow kon aaral sa yàlla yi ndax ñu ngi dal seen kaw sottil sottil merum safara ci seen kaw rek cooy yaqub dem na ba ñëw moom waaye daa mel ne am na ñuy dégg de allahu akbar allahu akbar sumia sawt ma hada sawt allahu akbar ka anna al bishara atat wallaay ndeysaan ah lu xew baadu xale bi dafa dellu baadu yaay ji dafa dee baadu xale bi dafa juddu dee baadu xale bi dafa ah mbégte nag yëngal na booba wane ni gis nga góor gi bég na bàkkaat na yàlla jërëjëf yàlla bàkk naa la kañ naa la sant naa la yow suñ boroom yow mi muccal sama soxna allahu akbar allahu akbar yàlla tiif moo gën a gaaw de moo gën a gaaw dem ci xàmb yi de ah loolu doomu ja yaqub bi ah soxna si mucc na kon ci jàmm ak salaam ah est-ce que astar rëbb ko est-ce que du njabaru istirga njabar ga mbokk yi xool leen déglu leen foofu rek wa wanal wanal waa faddaan sa doole ak lenn ci njabaruk istir gi yow astar mu mag mi dugalal mbégte ci suñu xol yi ñii la bëgg wan leen sa bopp wan leen ah safara sa nag boo moytu allahu akbar moom moo far tàkk gis ngeen day ba mu tuddee yaqub rek yonent yàlla boobu ni ko ñi ngi lay ñaan nga rëbb ko yow yàlla ji sotti safara si far safara si sotti dal ci kawam waaw yéene néeg la boroom a cay fanaan ma ngay daw di wër wala tanfauha shafaatu shafiin allahu akbar mbëkk na miir ba lan tanfaaha shafaatu shafiin allahu akbar tey day benn intervention du ko jariñ ndax dafa weddi yàlla di jaamu xërëm di jaamu safara di dal ci kaw nitu yàlla gis nga fa muy mujj kon ku doon yëngatu ci njibar dawal génn ca gaaw ku doon yëngatu ci njëbaat dawal génn ca boo jàkkaarlu nitu yàlla rek musiba dal sa kaw yàlla na ci yàlla musal leçon boobu rek ngeen ci tiire yi waaye góor ga génn na de allahu akbar dugg si na na ba ca néeg ba mbokk yi déglu leen fii bu baax yàlla na yàlla wàcce jàmm ci yonent bi yàlla bi yàlla na yàlla wàcce jàmm ci yéen ndeysa ñu ngi lay ndokkeel ci sa doom ji barkeel ji yàlla na ko yàlla barkeel sa doom ji ñaan gaangoog nag barakallahu laka fi lmawlud wa shakarta alwaahib wa rudita birra wa balaga ashudda ñaan gaangoog jël leen ko de yonent bi salaa sallam nee na ku am doom la koy ñaanal maa ngi ñaan maa ngi sant yàlla ci yërmande mu def la ngay ko barkeel yow sama doom fukki at ñi ngi lay xaar am juddu woo fukki at ak benn ndeysaan waaye lu tax laajoo ndax góor la wala jigéen lu tax laajo waaw Youssouf moom moo wax leen laaj la ndax turu góor la wala jigéen noo xamee loolu kan moo la wax ni xale bi góor la ki ma ko xamal daal mooy ki ma bégal ni doom ji dana judd fii ak waxtu ginnaaw waxtu rek lañ ma bégal ni doom ji dana judd ca góor lay doon kon maarifa la waaye tamit ilham la allahu akbar doon it waxyu baa xam ngeen ni ndaw bi taw bii di wàcc ci barkeb do sama doom ji la ñu ngi lay dalal yow saa doom allahu akbar bichara ilahiya bichara ilahiya lañ koy tuddee doom ji judd ah ah ak doomam ji day ci xéewal lañ nekk de waa xoolal taw bi xoolal taw bi wàcc. léegi lan moo tax ñuy sàggan ni ndox mi daa wàcc ànd ak juddu xale bi waruñu koo sàggane de kooku nañ ci def jàngat nañ ci def jàngat ndax taw bi gëj nañ koo am doom ji judd rek taw bi wàcc kooku ñaari barke la allahu akbar تقصدين أن سوءا لم يمس kon da ngaa ragal ragal ni tus reñeel na leen ñoom daf leen a dala mun ko déedéet lii de ab barke la nga naan lan jàmm salaam ndax taw bi jógewul ci istir njibarkat ya de ci ay waay ndox mi taw na waay allahu akbar lu di taxaw waay yëngatu leen waay waaw xéewal yi na ñëw bég leen dañoo war a sant yàlla yaaquub tey jii dogal nañ ak dogal ci sama sët mu judd bekkoor ba dem na jóge na suñ dëkk bi bekkoor jóge na fa allahu akbar léegi nag foo faut ñu déglu message bi nag daa war a ànd ak message de waaye ñu xool ñu dellu fële ah gaa yi dugg si nañ fekk nañu nag ndaw sa tàkk na Esther dee na ba tàkk yàgg na lam doon jaamu moo ko moo moo daanu ca kawam kon booy jaamu xërëm du la jariñ booy jaamu kudul yàlla njaabu ga du la jariñ booy ñaan kudul yàlla ñaan ga du la jariñ ba loolu ngay jaamoo ko ñaan sax mënoo moo moo lay mujj dal alak njabarkat bu nekk njabaram a koy yàqal moo koy alak ndax jaamu dong li muy jàngale mooy dañoo war a jaamu yàlla dong wéetal ko bàkkatu ah baa tàkk de yaa ngay tàkk de ma ngay tàkk de. ah kilifa gi day fa lu fa xew ma ngay tàkk da ngay tàkk maabad baa ngay tàkk fa ñuy jaamu xërëm jaa ngay tàkk. allahu akbar. waaw lu xew. man de xaw ma ah, ñëw leen ñëw leen ñu dem xooli lu fa xew ndeysaan mbokk yi xool fii bu baax nag kon ndam feeñ na yàlla wane na ni moom dong mooy maye mooy xañe ku ànd ak moom dong lay faral ku ànd ak moom lay jàppale ku ko weddi di ñaan keneen wala ngay sàkku ndimbal ci keneen yàlla dalay lay loola moo tax ndaw si bu ko yàlla bàyyeek safaraam sa safara sa lakk ko ba ñëpp a xam ni lam doon jaamu du dëgg jaamu yàlla dong mooy dëgg ah mi ngi lakk de safara saa ngi koy lakk de maabat baa ngi tàkk de dimbali leen ñu ci ndox au secours na ndox mi ñëw cey góor gi lu mu xalaat déglu leen góor gi ah safara si day mi ngi gën a tàkk waaye taw baa ngi wàcc li yéeme na indi leen ndox indi ndox wala moom incense secret baa ngoog moom ca biir la jóge moom tey ma ngay tàkk góor ga génn na moom tamit ña ngi koy fay ndeysaan <laughs> allahu yi jaamu yàlla dong moo wóor ñaan yàlla yaakaar yàlla wéeru ci yàlla sàkku ndimbal ci suñu borom subhanahu wa taala ana njibarkat bi Estir ah na ko mënu woon a génn kenn mënu ko woon a génn ah kon moom waaw waaw lakk na de ah, ah Estir eh, lakk na na loolu nan la mën a nekke loolu mënu koo lakk waaye safara du ko lakk وإنقاذها كيف يمكن أن تلتهم النار سهلة nan la ko mën a lakke الغرابة في ذلك احترقت لأنها ليست من waaye loolu jógewul ci yàlla yi moo ko lakk انظروا إلى الإلهة عشتار وكهنتها nan la ñuy lakkee ci safara te ñoom mënuñoo xeetali seen bopp xanaa Ister waxul woon ni Rahil ak njabootam ñoom ñooy lakk moom dong dee moom bi doon daw si dong dee de góor gaa ngay dem en tant que gouverneur foo jëm foo jëm sécurité bi foo jëm. maa ngi dem wanal sama ngëm yàlla ci yàlla Ibrahim yàlla Yaaqub man maa ngi dem jébbalu ji ci yàllaam ja maa ngi dem tuub dugg ci diine xanaa néew woon Yaaqub mooy musiba dëkk bi xam baa xam nga ni doomam ji judd moo tax xéewal gi ñëw ak barke bi nañ leen dem barke ci leen fi nañ leen dem wàcc bu leen dem fan ngeen jëm bu leen dem waay des leen fii ah déedéet ku am defet kenn du ànd ak yow fu ngeen jëm xool leen fi ñu doon jaamoo suñu yàlla mi ngi lakk de ngeen bëgg ko fee bàyyi astar yàlla ju mag ji xërëm bi moom moo ci des dana lakk de Ester moom lakk na del si leen fu ngeen jëm yéen waa Faddaan dañoo war a fay safara si de ndax yàlla fi ñu jaamoo yàlla ji bañ a yàqu waaye ñëw leen eh, xeetal yàlla ji ci biir waay xërëm ba ñëw leen fay safara jaamukaay yàlla bi dellu leen allahu akbar kenn mën leen a ràmm nit du am defet nga ànd ak moom taw baa ngay wàcc day ah mbokk yi nag ñu déglu fii góor ga ñëw na jiital na mbooloo ma yépp kon victoire am na ñeel Yaaqub waaye tamit defet am na ñeel fañ doon jaamoo xërëm yi yàlla am na ndam ci seen kaw lii mi ngi doog a am ci seen réew mi fa daan histoire noté ko ndax ñoom lii dong lañ mosaan a xam depuis seeni maam li lañ xamoon ñu ngi sëggeem ñoom ñëpp di yolleeku lan la ñuy def si allahu akbar bokkiñ bokk yàlla nañu góorgóorlu suñu diggante ak suñu boroom moom dong lañu war a jaam moom dong lañu war a ñaan déglu njàngalem yonent yi ca topp ca moo ñuy muccal àdduna ak àllaaxira أعلن الله من wàcc na yërmandeem jële na fi ësël هذه الأمطار تغمر مدينتنا عند قدوم sa doom ji tax ndox mi wàcc loo ci wax te nga indi doom ji ñu xool ko waay la mafar li min al idham fii kat kenn mënu fi rëcc bi annaka nabiyyu yow dong yaay yonante bi yàlla bi gëm nañ ko faqad ra'aytu bi maa gis sama gëti bopp sa doom ji juddu ray alag na doom ji fañ doon jaamoo xërëm ñëpp ci yem ñëpp ko gisandoo kon am nga ndam andil nañ ko xale ba ndeysaan wala liir ba ngeen baal ma andil nañ ko liir ba léegi nag discours bi lañuy déglu nag victoire moom fu amee rek discours buy yeete da ca war a topp ndax sekk sàkk amul ni Yuusuf mi judd judd gi barkeel yàlla alag na fañ doon jaamoo xërëm yàlla wàcce na taw bi waaye yàlla ñëpp la kenn la mooy yàlla gi ji di kenn ñun moom ndax mu ndax gisoon ngeen ko ñun moom gis nañ ko wa guddi gi nag léegi nag dañoo war a gis nag doole ji nga xam ne moom la sa yàlla am ñëpp dañoo ñëw nag pour dugg ci diine ji seede nañ amul benn buur bu dul yàlla yow noo yonent bi yàlla bi yow yonent bi bi mu ni wanal nit ñi leeru ngëm yàlla ndax dégg ngeen li Faris wax ñun ñëpp a ci ànd kon su ma li ma wax topp leen ci wax ko ñu war a dugg ci lislaam nag weddi nañu yàlla yiñ doon jaamu ak la ca aju ci yëpp ay yàlla yàllay caaxaan denc na den nañ ci ñoom ñëpp ba set wecc ñi ngi seeneen amul benn buur bu dul yàlla yàlla mi boroom asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar gëm nañ yonent yëpp ca du ñu tàqale diggante kenn ka ca des ñëpp lañ gëm topp nañ leen seeni ndigal ñoom la ñuy topp seeni ndigal tamit seeni njàngale lañuy topp kon gëm nañu yàlla gëm nañ yonent yi weetal nañ yàlla dugg nañ ci tawxiid génn nañ ci kéefar allahu akbar bokk yàlla waa wane na kéemtaanam te dafa bokkoon ci mbir suñ boroom li mu daan dimbalee yonent yi mooy loolu ñu tuddee mu'jiza waaw gis ngeen ndeysaan fañ doon jaamu xërëm yi gis ngeen ah, mujj na nekk foowukaayu xale yi waaw kenn dootu fa jëm yàlla jan fa yaakaaroon mënul woon ñëpp xamoon nañ ko mënul amul takk na ba jeex juróomi at yu romb nag yàlla wan mbugalam ñi nga xam ne mooy fi ñu doon jaamu asal juróomi juróomi at yi nag ci la yàlla ubbi yërmandeem ak xéewalam raxiil umu yusuf ak yonent bi yàlla bi ñuy wax ayub am nañu ñi ngi xaar nag jeneen doom ji war a judduwaat allahu akbar yusuf mbokk yi Youssouf a ngi noonu gis nga léegi dëgër na juddu na ba dëgër nag ndeysaan tey dinañ ànd dem ca àll ba waa ànd naa ci waa ah, yaay de ànd dem ca àll ba neex na ma lool ni bëgg laay def ndeysaan kon gis ngeen góor gaa ngi noonu di benn voyage war a génn ànd ak soxnaam ñu dem nag euh, ci àll ba doxantu waaye nit ñi dañoo bëgg Youssouf waaye ñu xool ndax ñëpp a ko bëgg. daa mel ni fiiraange day day bëgg a dugg de xoolal wujj yaa ngoog ñoom day gis nga bët ba ñuy xool gis nañ góor gi ànd ak soxnaam Rahil ak Yusuf di dem ci àll ba ndax neex na leen mais pourtant ñoom ay ay mbindaan lañu woon de mbindaanu Rahil lañu woon de Rahil de moo leen mujj ay góor gi ñu nekk ay soxnaam waaye ndax bi mu amee doom ak léegi yéene nañ ko iñaan a ngi noonu. كانت رحيل زوج يعقوب المفضلة قبل أن يكون له moom daal bala muy am doom moom moom moom moom la gënale ci ñun moom la gënale ci ñun Yuusuf a ko gënal ñun de ñun léegi dañoo mujj nekk ay jaam lu tax àndut ak ñun muy ànd ak soxna si moom dafa bàyyi ko moom dafa nekk ci mbiram aw la ah bu ko bëggee kay mën na koo def loolu amul problème kii mooy Yahuza bàyyi leen ko xel nag man lu ci sama yoon man loolu samay nekk ci xale boobu góor boobu bàyyi la ko xel sa bàyyi kay daa waroon ah, lu tax mu bëgg a ànd ak moom kese bàyyi fi ñu ci des moom daa mel ni nag fiiraange jàppandi ni leen ak ah, iñaan mi ngi bëgg a dugg nag waaye xale bu góor boobu ñu wane woon léegi ngeen bàyyi ko xel moom mooy ndeysaan ki ñuy tuddee yahuza yahuda yahuza nag ci la baatu yahud jógee mu juif yi fa la ñu moom di ngeen xam mbiram ci kanam incha allahu taala waaye daa mel ni am na gawar guy rëppatal di ñëw am na gawar guy rëppatal di ñëw ah, jëm nag ndeysaan ca dëkk ba ñuy wax faddaan di ngeen xam it moom fan la jóge waaw ah lii boo ko mosaan gis rek daa mel ni xibaar la ñuy indi xale gis nga ñi ngi bëre ba léegi ñoom ñëpp dañoo dëgg léegi màgg nañu man damaa war a dellu nag sama dëkk ba fa ma jóge woon parce que xale yi bëri rek parce que ñoom nee nañ ku ëpp doole sa moroom rek ku ëpp doole rek ëllëg yaay doonu sa baay xale yi nañ gaañante de doo dem kii leen bul jaaxle ci loolu dañuy bëri seen biir rek dañoo yaakaar ne ku ëpp doole rek moo nekk sama xalifa moo may wutu ndeysaan gis nga léegi xale yi dëgër nañu ndeysaan waaye ndey mbokk yi am na kuy rëppatal di ñëw gawar gaa ngay ñëw ndeysaan si na xool lu mu indi ndax xam nga Yaaqub bi ñu yonent bi doomu Isxaaq moom barke la moom borom daraja la ku ñu xam demal xool ndijaay mi ngi fee mooy gouverneur bi demal nga laaj ko donc il faut passer par la voie hiérarchique waaw ndeysaan doo ñëw rek àgg direct ci ka nga soxla waaye da nga am fooy jaar. mooy kan kanaan laa jógee may la ma dugg mhm. ñëwal kon kanaan la jóge xam ngeen kanaan mooy dëkk cosaanu Yaaqub fa lañ jóge woon ñëw fii waaw waaye gis ngeen Raxiil jamono jër fa nekk jigéen nag ñoo leen fii yéen Yuusuf a ngi noonu ànd ak yaayam Raxiil gis nga ñi ay mag Yuusuf la demal demal ànd ak Yuusuf ma dimbale sa yaay ndeysaan gis nga jigéen la dafa tool dafa nekk dafa tool diggante waaye ñoom dañ daan dimbalante rek ñoom seen biir ndeysaan nee na ko demal kon kooku xale bu jigéen boobu doomu ndayam la waaw doomu baayam la ndeysaan koo koy balxaa nag sama ngi koy jàppale ay wujju noonu la ay wujju duñ ay noon jàppalante la dimbalante raxiil ndax da am lu beesaat ah, waaw yal na yàlla barkeelal la ndax yonent bi xana xam ne danga nga xam na ko kay ndeysaan hmm, ndeysaan xool leen nag gouverneur a ngi noonu daa mel ni day am na lu xew de lu xew allahu akbar caay doom yaa ngoog cet cet cet maam jàll ja maam ñu ngi lay dalal maam bàyyi lu xew ah léegi fàttali ko nga ñëw hmm. caay yaa mu xewul de ba dafa am musiba bu xew lu xew baay góor gee ngeen di gis kanaan la waaye xibaar bu yéeme lañu ñu xibaar bu tiis lañu andi indi ana yaqub yaqub a ngi di génn ndeysaan waa lu xew laabaan lu xew sama ndijaay lu xew da ngaa da nga da ngaa jaawale yoon wi nga ñëw da ngaa réer xanaa wala wala ma sa aquluhu murrun li may wax ni lakinani a'lamu annaka satut waaye li may wax ni lu nar a naqare waaye xam naa ne di nga ko àttan aw tiis la waxal looy noppi waxal abuka sa baay isxaq day iltahaqa bil malakut wuy jëna sa baay génn na àdduna allahu akbar ah, ndeysaan cay sa baay isxaaq génn na àdduna wujji na boromam allahu akbar ma nga woon ca kanaan fa la dëkk waa yaquub ndeysaan am naw tiis inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi jëf yàlla wa jóge woon ca moom lañuy ñuy dellu loolu mbokk yi ku ñàkk wala dawlu loolu ngay ñaan bul jooy bul dajjitu bul mbécc sa bopp bul wax alkuna bul wax ñàkk naa bul wax deena yonent bi nee na déedéet kenn du ko def waaw ndax innal mayta la yuadab bi bukaa il xay ku dee buñ koy dooy dooy yuuxu rangoñam yooyu day nekk rangoñ yooyu day nekk ndox mu tàng bu ñuy sotti di ko mbugalee ki dee woon kon ku génn àdduna sa mbokk bu génn àdduna waxal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nga delloo lépp ci yàlla waaw allahuma ma minu hal azamta ala shay ndax dangaa dogu pour def dara ginnaaw isxaq nag ci suñu aada yonent bi mooy yonent yàq moo koy wut sa sa sa mag bu jigéen faayiqa nee na ma jottali la message boobu nee na nga ñibbisi ca dëkk ba ndax yaay xalifa ba léegi da ngaa nar génn fa daan dem loolooy am nag dee dee moom wér la moo tax kenn mënu koo daw yonent yëpp nitu yàlla yi ñëpp ay dee maa ngi leen sant seen ni ngeen ma yaatale maa ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu muñ mu defal ñu ak muñ yow yonent bi yàlla bi ndax ba ngaa des ak ñun suñ suñ la nangoo topp fasante yow ko la ndax di nga des fii man bëgg naa waa Faddaan lool. waaye dina tiis ci man pour ma jóge fi nag waaye nag aw ma ci aw ma ci dogal aw ma ci faaw du du man maa bëgg a dem waaye du man maa bëgg dem sama bopp waaye loolu la moo xew dëkk ba faw ma dem fa wuutu sama sama baay ci yonent ga waaye tamit euh, wuutu ko ci xilaafa ga ndeysaan ma ngay waaj nag waaye ñu xool euh, moom daf daa daf leen a bëgg a topp waaw Faris daf leen a bëgg a topp nag comme ñu ngi préparé. suba na ko préparé leen seen bagage ah ñu dee dinañ dem ànd ak yow incha allah maag sama soxna dinañ ànd ak yow ca dëkk ba. ñun pare nañ pour dem de fan ngeen jëm te ñu ànd ak yow kanaan mënuñu laa bàyyi lu des sunu dund yow la ñu àndal ndax yaa ñu sauvé woon. sama sama. laysa bi maqdurikuma an ta'tiya ah bu du ngeen mën a dem nag de. xayrun lakuma an tabqa da ngeen war a des fii ci dëkk bi. wa tattaxida min bayti wa daari ngeen jël sama kër muy seen muy seen kër jël leen ko ngeen toog fii. man damaa fasante woon ak yow kóllër ni damay des ak yow ñun tamit loolu lañ fasante woon ak yow ñun suñ dund gépp yow lañ ko joxoon fii la ñuy toog ak yow loolu lañ ñaanoon ndax yaa ñu sauvé woon say mbokk ñoo la ñoo ñoo gën a am aajo ci yow waaw fii nga dëkk waaw yéen oh, cey amul leen ma benn bor wax dëgg yàlla amul leen ma bor ndeysaan ah bëgg nañu ànd nag moom de waaye nag daa mel ni day dañoo bëgg mu des góor gi dafa bëgg ñu des fii nag ah waaye am nañ tiis ndeysaan ahmadullah maa ngi sant yàlla discours baa ngoog moom mi ñu defal njub ak xéewal ak leer nekkoon naa seen biir ay at ma ànd ak yéen seen mbégte ak seen naqar tiis na ci man pour ma dem pour ma dem bàyyi leen fi daan ngeen jaamu ay xërëm yàlla leeral na seen xool yi nag ba ci leeru ngëm bàyyi ngeen xërëm yi di jaamu yàlla jaam yàlla ji nga xam ne amul benn buur bu dul moom boole leen yónnent gi sot wëlbati leeru ngëm yàlla jënde ko li nga xam ni mooy dëgg li ngeen def lépp yàlla gis na ko maa ngi leen di tàggu di leen dénk yàlla allahu akbar allahu gis nga zawadaka allahu at taqwa waaw kuy tukki loolu nga koy wax waaw nga ni ko ñu ngi lay. اشتغلت برعاية أغنامي لسنين متمادية waaw doon nga. ولم تسألني daan nga ma sàmmal ci musuma la musoo fay. ولست تملك ثروة أو musoo am dara man nga doon nga doon liggéeyal. لذا قررت أن أهبك وابنتي رحيل وليا نصف léegi nag may naa la génn wàllu xay. كي تستعين بها في قضاء حوائجك وتأمين ci sa dund ndeysaan nee na ko at yëpp man nga doon sàmmal. musoo cee bëgg dara waaye xaaji xar yi nañ ko xaaj nga jël ko yàgg samay soxna samay doom baay sant nañ la gërëm ne yal na yàlla yaatal la baay booy loolu moo ko moom man kay maa ko war a sant waaw sonn na ci man ay at di ma kii ndeysaan ña ngi koy tàggu ndeysaan ma ngi leen di tàggu nag ma ngay fas yéene dem fa nga xam ni mooy dëkku maamam ndax risaala gi ci loxoom la nekk yonent gi moo koy doon mooy doon xalifa baayam moom Yaaqub mi ngi noonu di dem xam ngeen Yaaqub wax na leen Isxaaq moo ko jur Isaaq Seydina Ibrahim moo ko jur dëkk bi muy jóge mooy Faddaan ah, fi la féete woon waaye dëkku cosaanam ak ay maamam fa ñu dëkk ah, mooy dëkk ba nga xamee ni ndeysaan ah, fa la daal di nag war a jëm waaw ndeysaan tàggatoo neexul yal na yàlla aar leen yéen ñëpp yal na yàlla aar leen ñëpp yàlla wattu leen allahu akbar mbokk yi nitu yàlla ngi noonu di dem gis ngeen nit ku am njariñ ci dëkk amal njariñ ñëpp am ak ñëpp jàmm am ak ñëpp euh, teraanga ba bis mu war a tukki dem war leen fa bàyyi du neex waaye dénk na leen yàlla euh, booy dem da wax nii astawdi'ukum allahu li dunikum amanatikum wa xawati umurikum waaw noonu ngay wax njaboot gi moom ñoo ñoom ña nga fay bàyyi ñu la zawadaka allahu taqwa bam jeex waaw ñu ngi ñaan yàlla dal sa yóbbal di ragal yàlla mbokk yi sëy na yaaquba yi noonu di dellu nag wala di ñibbi ndeysaan ànd ak ndaw la jóge woon ca dëkk ba waaye nag Youssouf ndeysaan ni ngeen ko gis yaay jaa ngi noonu sol lu bula li moom nag tànta sama tànta lu tax lu tax bal aha ak sal sama sama tànta yi ñu iñaane sama yaay kan ma la loolu ñëpp a ngi koy wax ñëpp a ngi koy wax même Yahuda dégg na ko sax sama tànta ñu ñu ah xale du dugg ci yooyu nag xale du dugg ci comme que laaj nga ko dinaa la tontu nag. balha moom jaam jaam la woon waaw bi nga xamee ni sa yaay mënta am doom mu daal di koy may sa papa nag ndax mu yàlla wërsëgal ko ci doom mu jur sa ñaari sœur yooyu léegi nag ci lañ ko mujj respecté nag looloo tax nag mu mel ni ko xaw a nag fiire léegi place ba mu amoon nag moom la ñàkk. est-ce que Zalfaas yow sab jaar jaam la woon waaw ginnaaw loolu man tamit ci laa dogal ni naa ko jël may ko ko may ko bu sama borom kër ndax damay bañ sa yaay jël sama place man tamit Zalfa moo ju Jaad ak ak ñoom ña ngay nekk di fo ba xar ya xar yaa ngay leen fay dem leen lu ngeen di sàggan dem leen toppatoo jur gi waay ngeen jiital leen ñu ñëw ah kay bàyyi ña nga cay jëm kooku nag na ngeen ko xàmmee. ah mbokk yi ñu xool fii kon def nañ escale dallu da ngay tukki moom jëm fu sori moom comme que Baabil lañ jëm fa sori faw ñu dallu. demee ba guddi rek ñu daal di noppalu ñu xëyee doog a continuer dox bi nag waaye ngeen bàyyi xel ni soxna si dafa nekk ci en état dafa ëmb kon Youssouf daa mel ni moom day xaar rakk moom tamit waaye gis ngeen day tante ji moom ba tey fiiraange gi ku ci nekk yaa ngi occupé say doom laya baa xam nga ni Yaaqub ni muy teral a kee ëpp na nag suñ wujj wi bu nee ni mu féete kook doomam ja rek noonu nag man nag sama sama rakk moom du ma ko iñaane moom ay doomam moom ëppale wu may doom kay waaw ni ko Yaaqub bëgg tamit euh, ëppul sama mbëggeel kon man jërul ma koy ma koy soxore kay iñaane ndeysaan <laughs> mère bi bàyyi leen ko xel bu baax a baax soxna si xool leen ko yéen ñëpp ca bàyyi ko xel waaw du bàyyi gis nga lii na fi moom du ñu bàyyi digganteem ak sëram ñu dugg ci sax ndeysaan Yuusufa ngi noonu bàyyi ji bëgg ko lool ndeysaan waaye xoola bëtub lool la ñu tudde bëtub eñaan yàlla nañ ci yàlla bët baaxul bët yàlla nañ ci yàlla musal al aynu xaqun yonent bi nee na bët dëgg la de soxor baaxul de eñaan baaxul mbokk yi waaw ñu ngi noonu nag ci yoon wi di dem yoon wi gudd na nag léegi ñu àgg lii la xe xeet yi daan dunde tukkeeg tukkeeg seen teewaay ñoo yemoon ah soxna sa daa mel ni ah leen gaaw ñëw leen wàcc leen ma la yaa ndeysaan ñaata des si yoon pour ñu àgg ndax mën nga xaar mënatuma dara mënatuma dem. yahuza samoon samp leen fii xayma yi wàcc leen xayma yi ngeen samp est-ce que am na ko mën a réewle kanaan am na ko fa mën a réewle ndax kanaan lañ lañ jëm shira ashira ñëwal wala shira dawal faayiq nga jëli ko mu ñëw réewle ko sage femme ba demal jëli ko kon fañ jëm fa lañuy ñuy jëlee sage femme bi ko war a réewle gaa nga ca tànt ba nag oh. dangay defar xayma ya ah oh. soxna si daa mel ni sonn na daa mel ni Yuusuf day bëgg am rakk nag allahu akbar mbokk yi fii nag bàyyi leen ko xel xam ngeen nii boo marié am borom kër toog fukki at ak benn amoo sox amoo doom gis ngeen am doom gu njëkk gën a mette woon léegi nag Yuusuf yi gis ngeen fi mu nekk nii daanaka mi ngi toll ci ay cinq ans waaw nee na ko indi leen si jaada ak xooleen Yusuf yaay loola dal loo yuuxu yaay bul jaaxle maa ngi ci jàmm ah. yób eh, bii naa yóbbul Yusuf bàyyi ko bàyyi ko mu des ak man ndeysaan lu bëgg a taqal la yaa dëgërlul rek dëgërlul allahu akbar bokk yi xaala bu mettee ngi noonu wax naa leen ko ah. Ah, fii moom yàlla tiif ji day takkar naa si ndeysaan waaw ka annahum yowma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha maana cib ëmb lool ka annahum yowma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha waaw yéen a ca ñaan rek yàlla sottal mbir mi mu am doom ci jàmm ak salaam ak summa sabila yassara nga ñaan ñaan ga ka la ñaane woon yent yàlla sama yaay ragal naa dara jot ko de lu ñaaw lu tax ngay wax loolu na sa xel dal bul jaaxle ah góor gi ndeysaan ndeysaan ñaanug yonent yàlla yàlla na yàlla ñeewante ko bu njëkk ba daa metti woon moom da doon bëgg a dee bu njëkk ba nee leen yaqub mu ñaanal ko nee leen góor gi na ko ñaanal allahu akbar ceetete xam nga njur mu sore dafa metti njur mu sore dafa metti

est-ce que sa sama yaay bëgg ñoo tax bëggatoo dem bàyyi ñu fi bul wax wax loolu daf laa bëgg wutal rek sa yaay day jur rek man damaa jaaxle sa yaay de bul jaaxle yaa soo dem jël ko jëlal sa rakk ji nga yóbbu ko ndeysaan noonu ngay boole ak njaboot ñu nekk benn jàppalantee dimbalante waaye góor gi day ndax dina demaat xalwa wala ndax dafay def alxalwa mubashir waaw dossier bi ñëw léegi nga yégal ko léegi dossier bi ñëw léegi nga yégal ko léegi allahu akbar cay man yujibu lmutarra ida daa ay waay ñaanal ñu ñi ngi ñaan yàlla yàlla muccal ko comme ni mu mucc comme ni mucce woon kii man yaakaar naa du mucc gis nga ko soxor ki هلا كففت عن نفس النحس يا بو mata yow da ngaa soxor nee na bii paa de yaakaaruma mu mucc seet tët yàlla na ci yàlla musal gis nga làmmeñ jàppal ci jàpp jàpp jafandul bu baax rek jafandul bu baax rek nga puus allahu akbar cay mbokk yi yaa xaaliqa nafsi min annafs wa yaa muxrija nafsi min annafs wa yaa muxallisa nafsi min annafs xallisha yaa xaaliqa nafsi min annafsi wa yaa muxrija nafsi min annafsi waya mu li xallisa nafsi min nafsi xallisa ñaan googu la yonti yàlla eh, Isa ñaanaloon nag wa mu daal di am doom ci saasi wax naa leen jël leen ko waaw hadiyatan li rasulillah baaxee nañ ko xeet wépp waaw am na ñoo xam ni ndeysaan ah ay ndongo la ñun dañuy for rek fortaatu rek ba ñu gisee ko loolu kii ñu ñaan ko rek yàlla daal di koy dogal mu judd ci jàmm ak salaam wala kooku lañ jàng ci alxuraan rek annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha jeex na judd na ah judd na de xale ba judd na de allahu lu xew ndax bii bokk na ak bële si ni mu génn yéeme xale ba ju judd na ñëpp dégg nañ jooye waaye meer bi mi ngi génn di jooy de subhanallah allahu akbar ba ndaw si moom tamit mucc na bu jigéen ji tollu diggante di jut di am doom buntu àddunaam àllaaxiraam day ubbeeku doom ji buntu àddunaam ubbeeku doom ji daa mel ni buntu àddunaam ubbeeku na juddu na ba ndaw si buntu àllaaxiraam ubbeekuwul loolooy laaj bi allahu akbar ah, na ko baaxul baaxul allahu akbar xale bi juddu na waaye yaay ji ñàkk na ba kenam de ay Yuusuf départ na saa yaay saa yaay saa yaay allahu akbar oh inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yow oh, saa yaay ay yaay booy yaay bul dem ma fi subhaanallah yaay bul dem ma yaay dimbali ma bul dem bàyyi ma fi yaay koo may bàyyeel ku may wettali kan laay gisati ay yaay booy maa ngi lay dénk sama doom ji maa ngi lay dénk Youssouf sama borom kër maa ngi lay dénk nga téyel ma téye bu rafet allahu akbar kon ndaw si yëg na gis nga dey xoola soxna si moom ka waxoon ni amaana du mucc làmmeñ baaxul mbokk yi nit lu mu bëggul bu mu ko wax surtout bu dee saatul ijaaba maa ngi dénk sama doom ji xam naa ne damay génn àdduna bu mu yëg benn benn wéetaay foo nekk bu ko bàyyi la dénk naa la ko bul bàyyi sama doom ji téel ma ko allahu akbar oh. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahu akbar mbokk ndaw sa génn na àdduna ñaara amoon buntu àdduna xale bi ubbeeku buntu àllaaxira jigéen ji ubbeeku buntu xale bi buntu àddunaam ubbeeku na juddu na mi ngi noonu ñu téye waaye ndeysaan moom raxil moom génn na àdduna xoolal wujj wi ba tey xool bi nanguwul daa mel ni yéene na ko yal na yàlla musal ci iñaan ñee ñee tiis moom mu bég doom ja sax ngay jooy waaye moom ndeysaan ah ndeysaan dem na bàyyi fi doom allahu akbar allahu akbar allahu akbar yi mi ngi noonu subhaanaka ya rabbi سبحانك ما أعظمك سبحانك يا إلهي ما ألطفك الحمد لله على kulli xaal wa naudu billahi min xaali ahli naar loolu la yàlla mujj dogal mbokk yi mooy soxna Raxil génn na àdduna waaye doom ja nag juddu na di ngeen xam turam allah kon Yusuf am na rakk waaye yaayam génn àdduna kon Yusuf tey jii baayo rakkam jooju juddu di doog a juddu it baayo la waaye la ëpp solo mooy suñ borom dogal na ba Yusuf juddoo lislaam am na ndam ndax xam nañ ni jaamu yàlla doo nga wóor yàlla may na ndam ci kaw kéefër may na ndam ci ahlul tawxiid ci ahlul wathaniya ñiy weetal yàlla di bàkk yàlla di ko kañ di ko jaamu di ko yaakaar di ko ñaan di wéeru ci moom am nañu ndam ci ñuy jaamu ay xërëm ak gëm ay njibar muy leçon boo xam ne tax na waa dëkk bépp dugg nañ ci diine waaye ginnaaw ba it ah, yaqub ah, way juróom génn na àdduna muy ishaq léegi nag jóge na fa nga xam ne mooy faddaan dem na kanaan waaye ci yoon wi ca la soxna sa matu ko dikkal ko ndeysaan far mu génn àdduna ci diggante bi bokkuñ bokk yàlla loolooy jotaayu ñaareel bi incha allahu taala ñu ñëw ak yéen ci jotaayu ñetteel bi ki nekkoon ci kàddu gi seen mbokk ci yàlla Mame Bocar Cissé Thiénaba Seck in uridu illa al ma stataatu wa ma illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu